mbokk yi le 25 décembre ñu jëm arène nationale jëli ji de Noël bi càmm production moo fa woote Baba Jaw jiitu ko sept grands combats ci benn ngoon déglul ma wax la ñi mu boole Jackson Junior la jël daal di koy jox ñàkk jëriñ général Malika mel ni mi ak Buur Siin dafa leer Alaaji Gaynde Dudu Saane booy mbuur Fourière Boy Jules Kaw Cissé numéro 2 Fadam Junior Laurent Ndiago Alliance Balde Boussite Aliou Fatfat Lakantaan Caatu Faas 1 giga dal bonde mbokk yi lamb ji nag ngeen mun koo am en live pay-per-view ci seen affiche point com pour yéen ñi nga xamante ne ni yéen a nekk Sénégal 1500 francs dong lay jar mun ngeen ko jëndee par Wave Orange Money wala Free Money waa diaspora bi seen affiche point com le meilleur en pay-per-view au Sénégal. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ki ñu toogal mooy Gris mu Mbacké fas yéene waxtaan ak moom ndax yaakaar naa ne amateur yàgg nañ koo dégg ci làmb ji mu nekkoon fii Mbacké di ah parfois yaakaar naa mu dem sax ba Thiès. dem ba Gambie dem ba Gambie di wane boppam. Mhm. ñëw fi fas yéene waxtaan ak moom tuuti nuyu ko bàyyi ko mu nekk mbokk internet bi pour ñu gën a xam kan moom ngir dama lay nuyu bu baax baax di la ziar bàyyi la nga nuyu waa àdduna bi. waaw El Hadj Lamine ñu ngi lay ziar di la bëggee di la kontaane di la jox sa wàccuwaay di ziar ñëpp di kontaane ñëpp di la nuyu bu baax a baax a baax di nuyu nag suñu sëriñ bu baax bi sëriñ Massamba Ndour borom léppay baax. tey ñu nekk fii këram nga war ñoo defal interview ñu wax ñun ñooy ñan. Mm-hmm. waaw giri bi nag léegi dañ ne moom doomu mbaake la. waaw loolu la demee. lan moo waraloon giri. waaw lu waraloon giri mooy nekkoon nañ xale bëgg mu di ko dund Tapha Gueye nekkoon suñ idool ñu bëggoon ko tuddee suñ bopp suñ père lan saane dem si yàlla sax daan nañu tuddal giri parce que Tapha Gueye yi bëri na ci écrit bi. ñu jël giri bi te boobu giri tamit mu ngi def fa jamono bi muy daan ay Tyson junior di daan ay Lac de Guiers 2 mhm. Lac mhm. ñu doon ay xale tamit jël giri bi mhm. suñ borom dafit mu jig ñu ñu def ci ay performance yu am solo ñu dem dem ba si yàgg nag ñoo xam ni dëkk la ñuy bëreel te Mbàkke gépp moo nekk suñ ginnaaw ñu ne pourquoi ñu jël turu Mbàkke di ko wuyoo moo waral ñu indi doomu Mbàkke loolu rek moo waral changement bi bi ngay tuddee sa bopp Gris Bordeaux lan waaw boobu Tafa Gueye laa bëggoon trop nag comme li ma la wax moo ne woon sama idole fils de Tafa Gueye laa bëggoon a bindu di ko bëri per lansaane ni ma jëlal giri bi parce que Tafa Gueye comme que écrit bi am na ay plus de quatre personnes yoo xam ne ay Tafa fils de Tafa Gueye Tafa Gueye junior affaire yooyu te giri xew na te poulain wu Tafa Gueye la jëlal giri bi hmm. bi ma ko jëleet macha allah giri neex ma mu gis ay salañ salañoom dégagement ci làmbam xam nga hmm. communication bëreem ma jël ko nag di ko wuyoo ba pare nduroo woon ak moom lépp nag ci làmb lu ci baree bari. loolu mm-hmm. la demee. lan moo la dugal ci làmb loolu doon la wala da nga yoo xam ne dañu juddoo ci koñ rek fekk mbëri nekk fa ñu. waaw man nag sama mag Frétas doon na bëre moo nekkoon mbër suñ kër ma ñëw topp si ginnaawam di ko toogal ci migaay ba mujj gi ma dugg ci làmb commencé ci mbappat bëre ak samay xarit. Mm-hmm. ñu ñuy tegal saako ceeb ak ay affaire ma di ko jël di ko jël ba ñëpp ni mbër maa ngi nii. Mm-hmm. ma continuer nag di dugg ci mbappat yi di toj di toj ba mu dem ba xam ni nag moom li mu bëgg ci laam man man naa ko defal mu jox ma leng yi jox ma lépp ma continuer di mm-hmm. bu baax laaj lum sama grand waaw. kon daal kooku moo dugg ci laam ko ci ay maam ak ay papa yooyu. waaw parce que la woon moom lañ doon wax angaar bu maabu ko téye. Mm-hmm. waaw noonu la demee. kon loolu doon nga ko daal. doon naa ko waaw sama magu papa tamit mbër la woon bàyyi mu du xaar. sa premier combat kan nga ko bëreel. sama première combat maa ngi ko bëri géejawaay jour boobu Marley moo bëri grand combat maa bëri spécial bi. Marley kan. boobu Marley boobu ñu ngi débuté Mbapat. ah Mbapat Mbapat. Mbapat Marley maa ñoo yarandoo ñoo defandoo lépp. ok kon géejawaay nga nekkoon. waaw ah, géejawaay sama yaay fa la dëkk man géejawaay sax laa juddoo. waaw mais Mbacke laa dëkk parce que sama Mbacke sama papa Mbacke la dëkk fi la am kër sama famille yëpp mbake lañ nekk. Mhm. Marley ñoo bëreendoo Mbapat bi ñuy départ. xam nga mu bëri grand combat mu bëri spécial ma jugee foofu ñëw Mbacke am tournoi mu fi am un mois ma jël ko. waa Mbacke téye ma ni dootoo dem parce que mbër lañ doon wër te gis nañ ci yow mbër. ok loolu moo waralaan ma resté Mbacke toog mm-hmm. nekk ci ba léegi ma ne ci mbapat yi ba 2010 2011 ma dugg arène. 2011 nga dugg arène. waaw sa premier combat kañ maa ngi ko bëri ak benn mbër bu ñuy wax Aynu Rahmati. Mm-hmm. fan. Mbacke. ok ma daan ko bëreeg Zos daan ko. Mhm. bëreeg euh, Noiro. nii la moom. Noiro Doudou Bakassar. non Noiro bu Mbacke ma koy ñaanal tamit moom fi mu nekk yàlla ko suñu borom génn mu dellusiwaat si ñun suñu xarit suñu nii la moom ñëw ñu bëriwaat ma daan ko ñëw sëñ ma Samba Ndour mii mooy tëgg suñu grand combat. Mhm. parce que boobu dama tëj samay moroom daan ñëpp mais mënuma bëre grand combat ndax boobu masse bi dafa tuuti. Mhm. xam nga sëñ bi bëgg ma bëre grand combat tax mu tëggoon ñu. sama premier grand combat ma ñàkk ko mu jóge foofu noonu ñëw tegalewaat ay série de victoire mm-hmm. daal dugg Dakar xam nga dugg Diourbel dugg Gambie mën naa la wax tey Lamine ñu ngi ci vingt cinq combat mm. bëriwul suñ moroom yi ku ko def ñu ngi ci dix neuf victoire quatre défaites deux matchs nii mm-hmm. tey ndaanaan yi ngay lim ci réew mi yëpp ñi am loolu bariwul tey ma damay taxaw ma ne man maa daan waxambaane maa daan Gris Junior ma daan Golbin Fara maa daan booy Reef maa daan joor bu kees Siteu bu Jurbel Seex Ñang buubu caski ah saa Kajoor bu écrit euh, euh, Kër Masaar maa ko daan champion la mi ngi ci arène bi xam nga ñi ma daan bari na dugg ay Tiwaawan ay Daaru Jolof fu ne noonu la demee. bëri nga daal réew mi yëpp. non dama wër bari nga fu bëri ci réew mi. non dama wërum réew. <laughs> da nga wër réew mi. waaw dama wër réew bi noonu la demee. bëri vingt cinq combats. Mhm. vingt cinq combats nga xoolal vingt six. vingt cinq combats. vingt cinq combats victoire quatre défaites deux matchs nuls. deux matchs moo tax kon mu eggu fi nga nekk mbëru. mbëru mbëru mbëru raison wala parce que dañ concentré woon si suñu làmb ci département bi. bi ñuy débuté Mbacke lañ doon bëre. bëre fi ay combats yu bari daan ko. jóge Mbacke dugg Diourbel. bëree fa ay combat yu bëri daan ko génn Jurbel dugg Gàmbi dem Gàmbi def fa ay performance benn saakees bu Banjul moo ñu daan Gàmbi ñu daan fa saa Kajoor daan fa Escouteur bu Bakaw dellusiwaat ñëw dugg Dakar daan Golbin Fara daan Gris Junior daan Boy Reef wëlbatiku nañ ko. daaw a dugg si 2017. 2017 nga gëj Dakar. waaw bi ma daanee Boy Reef laa gëj a ñëw. lu tu waral lool. waaw benn instant rek suñu làmb dafa xawoon a métti Dakar parce boo xoolee. fi ngay jóge département bi dem ba Dakar transport bi météo. Mhm. côté fa fay yenn côté affaire yi te cachet yi demutoon noonu. jàppale ñu amoon problème mais suñu boroom indi na nag li nga xam ne moo ñu jafe woon miti ci ñun tey am nañ ko mel ni président Ndiaye président Ibrahima Ndiaye borom mouvement Mbacké en marche nekk école 2 ne suñu xarit ne suñu lépp lépp lu ñuy def mu jiitu ci tey bu ñu promoteur tëggoon Dakar suñu neexee ñu jënd cinq blocs. Hmm. am ku mel ni DG Galoba ministre. bi nga xam ne moo fi nekk ci réew mi nga xam ni bi mu ñëwee yàggagul mais ñëpp a ngi koy coow nekk meeru Mbàkke hmm. Galo Ba combat bu ma am danaa ma wax ma temps nga soxla ci ay ticket ma jënd ko ba sama combat bi jàll Sidi Diakhaté mi ngi toppaat ci man pour tëgg ma maa bañ ne ko bëréew fii Dakar rek ko ren incha allah damay dugaat temps kan nga soxla foofu waaw samay adversaire bëri nag ñi ma war a bëreel ndaanaan yi tey tey tey Tapha mbër mi ngi si contrat mais maa ngi moom tàkku sal dàqut loolu hmm. Tapha Mbeur yaakaar nga mu jël waaw mën na ma bañ a jël damaa ëpp palmarès te li ma def defagu ko Liss Ndiago man ak moom ay naataango lañ maa ko raw sax duñ ay naataango Alioune Seye 2 ay naataango lañ. Alioune Seye 2 man paa bu mag Papa na combat am gis nga mais ñooñu ñëpp suñuy adversaire lañ. Hmm. ay Pokola Balde bii. barki sëñ Bamba ñooñu maa ñoom ci taakusaan ay minutes laa leen di daal. maa leen daa a bëri fuuf maa leen man fop hmm? li ma capable capable luñ ko moom Pokola ñoo Pokola muy Jacob ñoom ñëpp gis naa leen ñuy bëre dawut sama yaram li ñuy bëre dama koo xeeb yàlla daax bëri non du seen moroom sax su ma doon bëree ñoom dama leen di corriger hmm? su ma doon bëree ñoom dama leen di corriger ndax sañ-sañ la ñuy jaay te làmb am na foo xam sañ-sañ baax na ci am na foo xam ne nag mën a bëree mooy ñëw ak expérience. ak expérience kon da leen jaay expérience. ak mën a bëre dama leen a dàq bëre. da nga leen dàq bëre. ba pare gën leen a pànk tamit li ma def defuñ ko. Hmm, ñooñ daal ku ci ñëw nga bëre ak moom. non barke ñooñ ku ci ñëw sa avance du fanaan. dafa am mi nga tudd sànq am na combat le 24 décembre moo gàmmu gay. moo gàmmu waaw moo gàmmu gay combat bi avantage la si dafa Mbeur parce que Tapha Mbeur fi mu jugee ci Ada Fass ñëw si Luis Ndiago daan ko. bu daanee day confirmer day duggaat beneen loo boo xam ne nii kenn mënatu koo bañ. Mm-hmm. mais Gamou Gueye mooy combat bi dafa nekk ci moom loo xam ne dafa war a wax ne dama juum ci soog. li li ko daloon su si daanoon kenn xamatut fu mu jëm. Mm-hmm. moo tax mu nekk combat bu doy waar. combat bu doy waar la. waaw ñàkk jëriñu ak Jackson. boobu nag moom laa mën a wax ci groupe bi Modou Gueye sama benn gars ñuy waxtaan ci combat yi ma ne ko ñàkk jëriñu ak Jackson laa mënta wax lu bari. lenn daal laa mën a mu ne ah, man ko expérience ñàkk. Ah. mën na may ñàkk lu bari ci combat mais à part loolu amul lu may indi naan ñàkk moo ko ëppalee lii Jackson. ku dul expérience gisoo sens am. non dañuy dañuy tolloo lépp mën na am sens. Ah, daal mais comme nga ni ñàkk moo ëppale lii man gisuma loolu. da ngaa gis lu lu lu kee parce que Jackson dama ko gis mu doon ndaanaanu kat doon ko am fulla ci li muy def ba pare bëgg ko te mu sa ñëw indiwul état nga ne daa amul doole moo tax dafa doon combat bu doy combat bu doy waar la le premier janvier Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang. <laughs> cappaacoli bi ah. ah. waaw Balla Gaye 2 Boy Niang. Boy bu yeex moo ko arrangé bu diire. combat bu yàgg. bu yàgg ñuy xeex di bëri bu yàggee Balla mën na bàyyi. yaakaar nga ko. waaw gëm naa loolu. lu tax nga nga foog loolu. parce que fi Balla toll ci làmb bëreeti combat yu diire yu métti yooyu noonu làmb maytu ko. kon une une minute problème une minute bi ñu doon wax booy ñaan ko yokk naa ko. booy ñaa problème mu une minute boobu muy wax bu ñëwee pour daan Balla Gaye ci minute Balla moom daan ko ci minute. premier rénkum yooyu dara arrangé wu ci. kon moom booy ñaa premier dalante yi dara hmm. arrangé wu ci. mais fekk làmb ji Lamine mi ngi dem dix minutes doomu Mbàkke waxoon na ma un. mi ngi dem dix minutes rek looy teg dee ko teg ci booy ñaa mais. kon teel a yu njëkk. teel jàppante bi waaw. arrangé wul man pour. waaye combat bi su yàggee. bu yàggee moom moo moom. Hmm. waaw parce que moo gën a ne xale moo gën a athlète yaxam moo gën a dëgër instant yi koofuram moo gën a baax kon combat bu yàgg moom la gën a arrangé. Hmm. parce que boo xoolee ci performance Balla Gaye combat bi mujj yi mu génn yëpp deux derniers combats yëpp dangay ngay gis ni côté physiquement day des coffre bi day des contact bi day des. kon kooku hmm. mënta indi lu extraordinaire lu jaaxal nit ñi. te Boy Niang combat bi mujj yëpp doo ko waxal loolu day indi physique bu doy day indi doole ju bari day indi endurance bu bari. kon combat bi physiquement ba Balla Gaye mënu indi lu ko jaaxal côté physique. non mënu ko ko indi mën na ko indil nag masse bu ko jaaxal masse rek la ko mën a indil lu ko jaaxal te bi ma gisaatee tamit dernier jàkkaarloo yi gis naa ball indi lu mel noonu parce que Balla premier signature bi li mu indi woon ak deuxième bi bokkul mo waral Boy Niang mooy changer discours ci deuxième signature bi. Mm-hmm. loolu war a changement discours bi. mais jàpp naa ne boo ñaar day gaawal combat bi moom mais gaawal bi arrangé wu ko. arrangé wu ñoom ñaar bu ñu sampee jaag xeex nag. bu ñu sampee xeex kii pied gauche la kii pied droite. waaw xeex boo ñaar la gën a arrangé. mais nag Balla dafa am xeexu làmb boo xamante nii tamit mën na ci duma ku nekk ndax Modou Lo jàpp naa ne Sénégal kenn dàq ko cee xeex wala kenn gënu ko cee pànk. Mm-hmm. te gis nga ko chaque jour mook Balla bu ñu leen fénqal bu ñu fénqoo ci digg géew Balla ci xeex bi la koy njëkk a parce que da koy indil lum xamul ndax physique non mënu ko ko indil mën na ko indil nag maas bu ko jaaxal maas rek la ko mën a indil lu ko jaaxal te bi ma gisaatee tamit dernier jàkkaarloo yi gis naa Balla indi lu mel noonu parce que Balla premier signature bi li mu indi woon ak deuxième bi bokkul moo waral Boy Niang mooy changé discours ci deuxième signature bi mm-hmm. loolu war a changement discours. mais jàpp naa ne boo ñaar day gaawal combat bi moom mais gaawal bi arrangé wu. arrangé wu ñoom ñaar bu ñu sampee jaag xeex nag. buñ ñu sampee jaag xeex kii pied gauche la kii pied droite. waaw xeex booy ñaar la gën a arrangé. mais nag Balla dafa am xeexu làmb boo xamante nii tamit mën na ci duma ku nekk ndax Modou Lo jàpp naa ne Sénégal kenn dàq ko cee xeex wala kenn gënu ko cee pànk. Mm-hmm. te gis nga ko chaque jour mook Balla bu ñu leen fénqal bu ñu fénqoo ci digg géew Balla ci xeex bi lu koy njëkk a diminé parce que da koy indi lum xamul ndax Balla du indil booy Niang lum xamul mais nag bu ko tegee ci kor rek benn bennal. Hmm. ah jàpp naa ni Boy Niang moo dàq xeex benn benn parce que xeexam da koy réglé. réglage la bu waree dóor day dóor bu waree esquiver day esquiver bu waree déplacé wu day déplacé wu. Hmm. mais Balla bu la naree indil seytaan da koy indi bu arbitre soufflé day tàkk sa kaw. dóor lay rafaal bala ngaa ximmali ko wala bala ngaa xalaat mu jàpp la taxañ la dem. ok kontaan li may tàggatoo mooy mbëri nañ jël doomu mbaake xale mbaake Bawol bi xam nga incha allahu rabi nañu ñëpp séntu ren arène national te fans yi ñu ngi toog di xaar moo waral boobu ba léegi tamit jëluñ koo mbaa Diourbel pour war a ñëwaat town wane suñu bopp. di bëggee waa Gambia yëpp sama père mu Ndiaye borom Gambia sëñ Ibrahima Nasiru maa ngi koy ziar mooy baax. di bëgg Mout Sarr borom Gambie di bëgg waa Gambie képp di bëgg waa Mbacke bool gi ma dëkk di bëgg Mamor borom Touba sama copain di ko ñaanal jàmm xam nga di nuyu Polom sama doomu ndey borom Daara Jolof borom le 26 borom ceet bu rëy bi ñu ngi koy waaj Mbacke gépp ñu ngi koy waaj di nuy nuyuwaat nag sama sëriñ sama xarit sama lépp sëñ ma sàmm Ndour borom léppay baax. kenn du moom ci mim réew. di nuyuwaat DG Galaba di nuyuwaat Ibrahima Ndiaye di ziar waa Mbacke bool gépp di kontaan ñëpp di nuyu sama doomu ndey Mansour Thiam mi ma àndal tamit njool mi nga xam ne moo way may doole saa bu ma amee combat. jërëjëf ok. ñu jëm arène nationale jëli ji cadeau de Noël bi Thiam production moo fa woote Baba Diaw jiitu ko sept grands combats ci benn ngoon déglul ma wax la ñi mu boole Jackson Junior la jël daal di koy jox ñakk jëriñ général Malika mel ni mi ak Bour Sine dafa leer Alaaji Gaynde Dudu Saane Mbuur Fourrière Boy Jules Kaw Cissé numéro 2 Fadam Junior Laurent Ndiago Alliance Baldé Bou Siteu Aliou Fat Fat Lakantaan Caatu Faas 1 giga dal bonne mbokk yi lamb ji nag ngeen mun koo am en live pay per view ci seen affiche point com pour yéen ñi nga xamante ne ni yéen a nekk Sénégal 1500 francs dong lay jar mun ngeen ko jëndee par Wave Orange Money wala Free Money waa diaspora bi seen affiche point com le meilleur en pay per view au Sénégal